di réccu bàkkaar yi ma juub tey ñaan ci xaafiru zunub mucc gu ànd ak texe moo bind faatu muy lu wér muy fas wu ñëpp war kon nu sax ci lu nu war ngir bu ñëwee nu far texe ay na yónent ak Babakar Ali Usmaan ak Omar a gaaña fekke woon badar moo gaañi lii lu ci pexe bu maag bi làqu naa murid bu maag ba faatu naa bakkan bu mus dunu dana xaseta dee du ay naxe tey ay na am naawul xadim gisoo fi kenn ñëpp dem barzaq wi ji seen jaamu ko rekk mooy pexe ay na ñu baax ña faatu nañ ay na ñu bon ña ferwi nañ kon nanu waaje sunu añ ba ngir ala muy ak texe banqaas bu mag ba fàq na keram gu law garan na alxaaji maam nool ñibbi na ca këri aljanay texe la yóbbu anbiyaa uyu yóbbu na awliyaa uyu moo yóbbu ceex mor mbàkki yu duniyaa du kër gu nuy saxe sëriñu daara yaa ngi jooy dongo ya jooy ya ba yoo murid yi tam ñépp ko jooy moo jaaku ni xala na ji jooy na xaacu na la dale fii ba dagana ko seeru muy yuuxute na wi àdduna mën a tere bu mag ba jooy na ko ci ñett fan lay xannu ko ndigal yeyit jafe na ko li rekk moo di ak taxe jafal na yàlla jëf ju rëy ci Seyxi Bamba mbër mu fat lu di liggéey di ko joxe bam tawadee ba dem Dakar Cheikh muntaha Mbakke Fajar jël alalam di ko ziyaar mu ne ko mu ku may joxe wallaahi mbaake li nga jëf ma ne fu lim ci waliif yaa jéggi mbaake mépp leef dalul caal janay texe firdawsi kay yàlla na doon sa wàccu waay ne leen ca wetu ahmadul amin may rammu képp kuy texe

subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin ki bind taalif bi mooy seen mbokk Sëriñ Fallou Samb ki roon jàng mooy seen mbokk Fallou Thioune di ñaanal bu baax Sëriñ Mamour Mbacke yàlla yërëm ko te jéggal ko te tax si barkeem di ñaanal bu baax kii ko fi wóotu muy Sëriñ Moustapha yàlla dëgëral ko te kattanal ko moom ay rakam te te yéen bu woyof loolu barke borom Tuuba